ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen bu baax ñu nekk fii ci Thiénaba ci kër Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla dogal mu nekk suñu kilifa nekk suñu waajur ñu lay ziara bu baax di la ndokkeel tamit ci gàmmu Thiénaba ndax suñu diggante ak moom ci grand Serigne la ko suñu borom boole jaarale ah, gàmm gi weesu daaw ñu ñëw fi sekk mu waxtaan bu am solo waaye bu ko defee rek kàddoom daf ko jox ko njabootam moom lañ koy jox rek incha allah rek mu sànni kàddu Serigne bi. mu nekk message boo xam ni dinañ ci mën a sukkandiku mu nekk message njàppandal ngir nit ñi xam taxawaay gàmmu ba waaye tamit sëriñ bi ñu bëgg nga ñaanaale ci réew mi ndax ndaw yu bari ñu ngi màngaani ñu dem ci bitim réew ñi ci ëpp ñàkk ci seen bakkan te jàpp nañ ñi ñu ci bare ba toog nañ ci réew mi ba yàlla may leen lépp ubbeeku kon ñu sàkkuwaale sa ñaan nga ñaan ko ci réew mi ñaan ko ci Sénégal ak ndaw yi tamit ñu gën a xam ni teraangay àdduna liggéey mën na koo maye muy message boo xam ne bëgg nañu mu jàllaale waaye tamit ak taxawaayu gàmm gi ci kër gi ak nga xam ne la ko mag ñi bëggee assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fii ci kër Serigne Mouhamadou Seck ñu nekk ci suufu Serigne Cheikh Tidiane Seck Euh, di xalifa sëriñ Mouhamadou Seck euh, nekk ci gàmm gi euh, cent quarante cinquième édition muy waa kër Seexu Canaba mën nañ ñi nag bu ne gàmmu ci réew mi bu ñuy lim ki ko ci njëkk a def mën naa ni Canaba day bokk ci ñaar ñi jiitu muy cent quarante cinquième édition maam Ahmadou Ndang nag tànnal ñu téere bu naan Ibnul Muhayyib nga xamante ni lépp si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wax lépp si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wax ndax yonent bi la borom bi subhanahu wa taala lim ko taggee mooy wa innaka la ala xuluqin azim suñ borom nag bi mu bindee doomu aadama tuddee ko al insaan xam ni doomu aadama nag matut moo tax mu sàkkal ñu yonent bi ngir ñi mën faa matee damay faral di wax ni arab day lépp benn wax bu gàtt ida tasafaxta umuura annaasi lam tulfim la an xaasal kama la faktafa day faral di wax ni benn doomu aadama matut ba pare doyloo mat gi saa borom sàkkul doomu aadama bu mat ba pare doyloo mat gi waaye nag wëlbatiku ni siwa rasulillahi saydil wara wallahi qad xaasal kama la faktafa waaye daan di yonent bi rek moo mat ba pare doyloo mat gi sëkk kon nag nga gis ni kon foofu borom bi subhaanahu wa dañoo joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ni doomu aadama mën naa nekk insaanul kaamil waaye pour mu nekk ko day topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doo ko mën a nekk insaanul kaamil waaye boo toppul yoon woowu rek mënoo nekk insaanul kaamil kon nag sëriñ bi moo ngi am kontaante bu baax a baax si teewaay yépp waaw di sakku nag képp koo xamante ni teew nga si gàmmu Thiénaba rek bul ni damay gàmm ji rek topp mbaay bi waaye boo ñëwee ba Canaba mu nekk dëkk boo xam ne dëkkub diine la dëkkub lislaam la dëkkub sariya la bu nee fii ci senegal fi ci Canaba toll si diine ah pour nit pour dëkk tollu ko fay jafe na trop parce que dañuy àtte sariya dëgg dañuy dóor dóori yoon képp ku fi tooñ doomu jàmbur bu dee ku jigéen gi doo ko amee si dëkk bi dañ lay ba nga set dara joju tour ci dekk bi mukk ci aduna lool nak Seexu Canaba moo moko faggu bo sété nak boy dugg ci dekk bi dañ lay dor dor yoon wàccee la bàkkaar yi nga ni lislaam yàlla jëm si kanam sant Seexu Canaba gërem ko dogu dugga ci dekk bi kon nak lool mam Ahmadou ndak sek moñu ko tanal mag ñi nak di ko diko di diko sàmm di ko si si ñu suuf way jur yi ñun nak ñu nek seen suuf di taatan sam googu pour buñ ci accès man ko samu comme niñ ko bëggee di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yéen dañuy si am buñ si àggee suñ borom defal ñu sutura bañ mën a taaw lépp mën koo téye comme ni niñ ko téwee di di wàcce kàddu gi foofu di ko tënk rek di wax salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.